الإرفان والنعم لله سبحانه رب له الإرام فهو نبي الذي ترجى شفاعته وهو العظيم الذي تمع به الأمم الحمد والشكر والحمد الفان والنعم لله سبحانه ربنا له الإلام ومن يحب رسول الله يتبعه في كل أمر دعا إليه يلتزم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه ربا لولا كدام فإن طاعته للخلق منجية إذا التقينا إلى الرحمن نتكيم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله شرنا لنا فاغفر لنا ولكل للمسلمين نبي وصر لنا عيبنا يا من له الكرم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله بلغ وصليا على الهدي ومن سلكه نجل هدايتي يا رحمن يا حكم الحمد والشكر والحمد الفان والنعم لله سبحانه رفع له الجنن والآل والصحب والأتباع أجمعين يا الله يا ربنا يا من له القدام الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه ربنا القدام اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ما شاء الله نيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni ma daan tijjee daanaka mat na xasida bu tedd bi macha allah laa daan ubbee samay waxtaan mooy alhamdu wa shukru wal irfaanu wa niamu lillahi subhanahu rabban lahul qidam bi nga xam ne suñu sëriñ sante na ko suñu borom tabaraka wa taala macha allahu yal na yàlla guddal aw fanam yal na yàlla fay ko liggéeyam bu mu liggéey yonte yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam macha allahu du ñu denc di ko ñaanal lu ñu fekkee lu mu fekkee ak lu mu fekkeewul yëpp suñu xol du denc di ko ñaanal ndax ku ko ñaanal mu ngi mel ni yaa ngi jaamu yàlla sànq rek maa ngi koy waxtaan ak sama benn mbokk ma naan ko nitu yàlla bu mel ni Thierno Hamidou ku ko gis mel ni ne yaa ngi toog ci xadara yàlla loolu moo ko liggéeyal suñuy borom moo dox ba nekk wali yàlla ci kaw suuf kenn du ko werante moom Thierno Hamidou macha allah ku ko gis it taxawaayam mel na ne yaa ngi liggéeyal yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax teg gi mu teg tànkam ci sunu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ko liggéeyal it mu ngi mel yaa ngi liggéeyal suñu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ndax cofeelam gi mu am ci xadara bi gi mu am ci tarixa bi gi mu am tamit ci njabootu Cheikh Ahmad Tidiane yëpp amul kenn ku Cheikh na Hamid joxul cër gu mat sëkk macha allah ku ko liggéeyal it mu ngi mel yaa ngi liggéeyal xadara Cheikh na Cheikh Alhaji Umar al Fuutiyu radiyallahu taala anhu ak mboolem xulafaa yëpp bu ñu tuddee kooku rek daanaka lépp mat na bu ko defee macha allah foofu la ñuy jaarale suñuy nuyoo di wax xadara bi yëpp di wax waa safina yëpp assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu uh, seeni mbokku nag seeni mbokku paspas machallahu almuɓe ma e eh, machallahu ɓesgu maɗa machallahu dayira ma to daru cubbu safinna daru cubbu gari ɗo hesɗitinde machallahu e juurade kadi e ñagade duwaw kadi machallahu e, e, e weltade teddugal ngal ngal ngannduɗa hoorema e, en dañi ɗum e hadara ma tedduɗo o kadi kadi e coftal kadi wondire kadi coftal e weltade kadi e ligganadema sabu honno mbiwimi joni ni kala mo ligganima ɓe ɗe darɗe nayyi foof machallahu nanema ɗum kam alhamdulillah rabbil alamin nde allah rokki en nde allah rokki amen ceerno mbaɗo hono ma e ɗim foguettireɗe fognede ettire ɗum allah saabu heewimo ala ceerno timmide ɗe gueɗe nayyi foof te ɗum woni ko yettirte kadi machallahu sen gari en dañi sens tawtorede kadi e yeeso makko den kadi yimde kadi yimre makko ngal ganda hore makko kañum o yimri annabi sallallahu alaihi wasallam e jettoje de fof alhamdu walchukru wal irfanu wal niamu fof o wi lillahi subhanahu rabban lahul qidam machallahu ɗum e jettiri ɗum allah no fewi enen tawaɓe zamanu makko hayre jod hayre jodda e makko hay oɗen dokkondiri e makko juurali ɗum kadi ko alhamdulillahi rabbil alamin mbiten enen wa safina daru cibo foof e dendagal kadi ɓe tawɗen ɗo kadi tawkata kon musidɓe kadi e julɓe kadi e almuɓe machallahu taala nane e nder jonde nde wadde mi wasa junnat tan saabu so ceerno jooɗima mi ala konngol kono hannde machallahu alay saago mi haala saabu ko ko minen jeeyi ñalawma minen ngari juurade ceerno amen minen ngari juurade fof amen wasila amen fofof machallahu wala ala kulli haalin fof min kaala e inde machallahu arɓeɗoɓe foof kadi e, kadi wadde présenté kadi dental ngal foof e, e délégation mo ganduɗa hoore ma min gardi ɗum ɗum tan woni ko jinmi e, e timmi ƴettinde joni inchallahu ko ardi foof emin jettano fewi jinnaɗo men oɗo pape babol bocar lom ko moƴƴo kadi omo horsini en kadi omo teddini en kadi kala ko gummaniɗen e moƴƴere allah si noddima tan hettata hen caggal ko koddiɗo kadi ko neɗɗo moƴƴo korsinde en konko ardi ardi dental ngal machallah min beltima hen no fewi kadi e mondal amin kadi wi abdoul diallo omo e dental he kanko kadi ko mondaɗo moƴƴo tedduɗo kala komi kala komin ɗetti o hetta hen caggal kankone ko neɗɗo ko neɗɗo moƴƴo omo wondi hen machallahu papa wat kankone kadi machallahu koy koye dental he ɓe ɓe jeeya wondi hen kadi président dayir o kanko woni oɗo eh, bayla diallo konkon président daweɗo kam foof a heptinta ni holgonde président e mon président ka foof ndendi nanngude e gollere ɗe no yiɓiri foof machallah kañumen koɓe nanggata no wondi hen kadi délégation alassane diop minen minen emin kewi arde ɗo ni e gammuji ɗi walla e, e-, e uji ɗi e kanko kanko jooɗi ɗo emin gondi kadi jibril emin kewi wallodirde no fewi e programme uji dayiraji ɗi foof minen gondi hen e machallahu abdoulaye kane min gandirino jinanmo kono wona ceeɗu no fewi mi jiɗino mi yiɗini ardude e bammakko ɓe min komi hollitma e makko konde wonno ɓannduɗe balle no ɗeɓi irtade seeɗa ɗum aɗo ñaguimi kam gantu pour min garanama retti sugalel ngel o fo ma junggam o wi kalana way commun allah allah ɓaade koye ama wurta ɗum waɗi kadi mbaɗa welti hen no fewi kadi kadi ko cuure kadi moƴƴen inchallahu taala o wiyete ko abdoulaye kane emin gardi kadi machallahu e seydou dia kamɓe kadi foof ko alɓe ɓeɓe jeeya mon e, e dental ngal ee bocar e kanko kadi ko miñomi abdoulaye kane machallahu o kadi ko ko e, ko ko ɓi hawa dia ko mawnum joom suudam e o sankinoma koye he o jeeno kono sankinoma gele gele ma won duuɓi ɗiɗi machallahu ko jinnoɗomi kadi jinnoɗo kadi dayir o ɓoyani ko ɓoyani ko tan min dokkinomo duwaw mawɗo to to daaro to kanko jimini oɗo abal abbas o innira ko ahmad tidiani shérif machallahu min e, gardi kadi e mbiɗa sikki worɓe gasi o mamoudam machallahu mahmoudam <laughs> eyyi kadi sownaɓeɓe kadi gardumi koye e, nenam Eh, kañum addi laawol ngol wonde kadi musi e eh, segal makko no feewi maire boy min takkodiri galleji galleji ko gooti kadi ne wiyete ko sohna dieylaa ly walla mi wiya hajja dieylaa ly <laughs> e eh, ndeysan comme kankone yo allah juutno nguurnam makko e yo allah ɓoyno darde makko e wiiia nabi salah sallam kadi e maire boy kadi machallah nene mariame boy e yo allah juutno nguurnam makko kanko kala komin ɗetti e hadare wetrani caggal son hen sahaji min jahanni min cuuɗomo haadema ko tampude e, e programme uji yo allah joni gurdam makko omo takkodiri e e monam so mbiyen mom ko hawwamo ceerno bachir allah mo ko yidde ceerno bachir kadi ko monam omo horsiniɓe machallahu o wiyete ko hawwa so minen minen jeyda to to daaru cibuto ne wondi hen kadi machallahu jali ka oɗo ko ɓe joom suudu joom suudu monam siré mo ndewmi o omo wonde délégation e wiyde ko jali ka an ne wondi hen kadi machallahu kumbali ko ɓi miñum miñum oɗo suka gorko kam fof koɗo koɗo gal o kam ko galle ko kongom ko ko ɓi amen joom suudo tan joguimo guila guilam famɗi o adimo o adorimo to to galle to o wiyete ko kumbali no wonde ko joom suudo nam kadi amadou afonenam no wiye no wiye sohna raabi kanko ne ko sérif raabi kane machallahu ko neɗɗo moƴƴo kadi tedduɗo machallahu sukaɓe nana jeeyalama eh, eh, inirmin henamo e huuray kammen eɓe kamɓe gondi e délégation o e eh, aissata aissata dia kankone ko mawniraɗo e joom suudam kam yiɗime baba kankone o ardi e délégation oɗani ko koddiɗo moƴƴo ene wiye sohna dieyna bali hande hande woni première fois makko arde ɗo kay kasganajo moƴƴo tedduɗo onani jaratno wi inchallah kadi ko ko garo yentude amen kankone machallah e, e, e sohna hawa diawo e ɓega e rabis joom suudu mano arde délégation mum e kamɓe foof machallah ɓe gari e juuradema kamɓe kadi bisimilla mabɓe kamɓe mata ko joni joni ɓe gari ko moñoraɓe sohna raɓe kamɓe kadi machallah ɓe gaari délégation e eh, e eh, sohna sohna kadia nana mataw sowata yiide e eh, huuray ɓiyam mo ɓiyam togoso omono arde makko inchallah mbawa rokkuma duwa no fewi oɗo oh, kadi joom ko joom suudu mawnam ne wiiye farmata aw mawna mo jirmi yumma goto eyyi konkone koto galtoɓe gooni machallahu e merci que foof foof ardi e fa tabarakallahu e ɓe garani ɓe o oh, kadi ko ɓi ko ɓi mawnam siré ne wiye cheikh tidiani kam fof ɓe koye délégage heɓe ƴeya <laughs> machallah ɗum tan ɗum tan woni ko jinomi ko jinomi holirde ɓeɗo gon délégage o ɓe gardumi machallahu arde juuradema hesitinde kadi e musidagal e ceernagal e fof machallahu saabu hannde ko an wonanimi mi wonanma to kadi kala ɗolgolmi kadi mi haalniɓe kala ɗolgolmi soɓe jaanimi tan koye mission ma golmi ɗum ñagotomi allah machallahu seydi seydi ban wadde jafoɗon konguɗɗi ko ɗum tan kadi e jaa e, e, jettinde ko konguɗi seeɗa tan saabu kalfade saabu so wiyi ko ceero joɗinimi daro cubu famɗani somi neɗɗo poɗɗo ni so wima jooɗo ɗum darcubu omo rokkam gueɗe joyyi ɗe ganduɗa hoorema kañum o wasiyto kam ñande foof yomi yomi yewtoto ɗum e dayre he woni hulde allah yidde annabi sallallah alah w sallam ɗoftade jinnaɓe e, jabde liggade rentade yaadeɓe bonɓe wadde so allah rokki kam on noon ceerno mi ari ha yeeso mum mi adori ɓesgam wadde mbaɗa foti hollirde seeɗa kadi e seeɗade allah ne seeɗi kañum woni anniyam e pelam e darndam to daru cuɓoto kañum woni no gondirmi e mabɓe kala komin dañi kadi wona kono kono kono reena kono kono mofta tan ha ha to ha to anda ala ala ala do haaɗi ala kala ko woni haaju amen e nder amen ko dayre o sohli min ittat min ñawda ɗum guila radio ji dayre guila dagoje dayre guila arde juurade ɗum tan woni ko kasaji nafata ha e nder amen kala mo kala ñawɗo kadi min guita e keese min mbiya ɗum da wallitoro e safaro ɗum ɗum woni mission ɗum woni mission amen e dayre he jokkere enɗam e, e. e, e wallodirde kadi e banggueji foof emin ñaguima do nde ɓeydoto dendagal ɓeydo hay eh, ani ani am min jogi e, e barke hadarama ma gannaaw ba ñu sante yàlla cerno maa nuyu ban dila ziar dila jox so waccu way di ñaan yalla guddal sa fan yalla dëgëral sa taxaway kérok bama ma ñëw fii di ziar ci nuyu la présenter la sama bop. ne la alaaji asan marokay sambay sama bay. nga ne ma sa waju de xamoon naa ko bu baax serigne koso mbàkke moom ma boole ak mom lol nak muy lu rëy ci man kérok bama ma la ko waxee nga ma def ma dom dima ñaanal sa ñaan yëg ko gis na ko sëriñ bi ma ngi lay ñaanal yàlla yalla yàlla guddal sa fan ya ma takalé bank dé kérok bama ñëwé nga yëkëti ñaari jox mako dama dama am luma la ci ñaanal am luma ci def ba ma ko waxee ba tey bank gëj bank banque xam nga ni géwal bank baaxu ci mom géwal mëna lu muñ lu né ba mu des ba ñak xaalis waye kérok ba nga ma ko car allah ma sha allah ci la gëjë bank loolu gannaaw yàlla ak yonent bi yow mii la baat maa ngi lay ñaanal yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla dëgëral sa taxawaay ku xool sa jëmm ji xam ne juboo nga ak sunu borom boo ñaanee mu nangu de tabaat fa kàlla macha allah boo ñaanee mu nangu ndax da ngaa jubóog sunu borom kon ñu mel ni yéen dañoo jar ñaanal lii nag dama ci bëgg ndax lii ma fekke nii yiw la dañ ciy sant yàlla bu baax a baax ndax démb laa fi ñëw bëggoon laa ziar ba ma ñëwee sa doom Bachir ne ma sëñ bi day fi ne nii dafa xaw xat waaye da nga fiy dellu si suba ci dimanche bi moo tax tey ma dellu si waat fi su ma ñëwee fekk fi daayira bi tombeeg daayira bi di ziar si lii mbégte la yiw la dañ ciy sant bu baax a baax di ñaan yàlla guddal sa fan baan nga yàgg fi loolu te wér jërëjëf jërëjëf baan ginnaaw ba ñu waxee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jàmm ak mucc ak yërmande barke yàlla nañu ko yàlla def ci ñun yal nañu yàlla may ñu fekkee na gën yi ak at yu bare bare bare yuy ñëw ne kontaan na nag suñu teewaay ñun ñëpp ne mu gën a kawe nag ci ñi ñu jiital muy soxna Jeyla alhaji Abdou Bokar Lom ak alhaji Bokar Lom nee nañu bu fekkente ne mbooloo mu ngi dem. ne bu dee ay mag kese kese. baax na. waaye bu ci ay xale nekkee it mu gën a baax. bu gisee mbooloo di dem. ne ay xale kese kese. baax na. waaye bu ci ay mag nekkee it moo gën. mag ñi jàngal xale yi. ne xale yi waxtaanal mag ñi. loolu mooy luy neexal ànd kon nag yàlla na ko yàlla saxal amin yàlla na ko yàlla yàggal yàlla na ko yàlla yàggal ne yéen ñëpp nag ñun ñëpp kontaan na ci ñu ne ki ñëw ki fekke ak ki ak ki fekkee yëpp ñëpp kontaan nañu ci ñoom ne ñaan nañu yàlla subhanahu wa li yàlla def ci ay arafi ziyaara yàlla nañu yàlla defal lool mooy yokkute mooy yewenal mooy dellu ci yàlla yërmande gu bàyyi ko ci yàlla ak njub jëm ci siraatal mustaqim lii mooy ay arafu ziyaara ci wàllu arab zaa bi ziyaada yaa bi yusru alif bi inaabatu ilallahi ورحمته ربي رحمته ها بهداية الله إلى صراطك المستقيم يلا نني يلا دفل لول امين بجاي رسول الله صلى الله عليه وسلم ne mbir moo gis it dafay am sababu sabab bi nag soxna Jeyla la waaye man Cheikh Ibrahim ñëw naa rafetal naa defar naa te it baaxal naa wane naa ne doom la wonanaale jarɓat la wonanan it harit la ne taalibe gi loolu feela ko teg almudagal condition ngaji mum ne saɗi sanne ndax taalibe gi condition mi dafa xaw a jafe kono noon ceerno kadi condition ngaji mum ɓuuri sattude waaye nag nekk sëriñ condition mi moo gën a jafe ɗum noon ce hakkunde ceerno e almuda hannde moo tax diggante taalibe ak ak ak sëriñ bi tey ko maslaha tan maslaha rek la kono haqiqa haqiqa o waaye haqiqa haqiqa tan loolu ndimbalu yàlla moo ciy dal almuudo timmuɗo almuudo o wawi taalibe ko mat taalibe tubbude e hooram ne lu tàmbale ci boppam eyi ha e hono am ba ci lu mel ni man lu mel ni moom newaki ne nekkul lu yomb kono haqiqa ceerno kadi ko wiyete haqiqa ceerno ko wawi lu ñuy wax dëgg dëgg sëriñ it كوكي نكل يوم واي سوتورا يالا اك ما خم اك يرمان دم من يكتي لب يالنا يالا يكتي سني مير بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ني لما وخ لولو موي لي ني دوخ دائره ني دائره gare ndende ha kewol ñëw leen ngeen dajaloo ba ngeen bëri loolu neex na baax na kono noon waaye nag yo taw ko kulal allah gardi ɗon na fekk nag ragal yàlla la ñu jiital yo taw ko gilleɗa sallah sallam gardi ɗon na fekk cofeel ngi jëmi rasulillahi sallah sallam la ñu jiital yo taw ko ɗiggande hilifaɓe mon gardi ɗon na fekk it il faut taxawaayu euh, liggéeyal suñu kilifa moom la ñu jiital aɗa jogui ma ne boo ne bo amee say kilifa say weejur ñu ngi dund digganaɓe ne na nga mokk jëme ci ñoom gona e caggal nga nekk seen ginnaaw keddoɗa e nga dee ci seen ndigal darta barke ne nga xool seen barke so tawi ko a sohnajo bu dee soxna nga allah yàlla def na nga nekk ci buum ginnaaw yàlla ak yonent bi namna joom galle ma ne nga déggal sa borom kër nga topp sa ndigali borom kër ne nga nangul ko bu la digalee nga def ne bu la teree nga bàyyi nga def ko ngir jëmmi yàlla ne nga nga ut barke ak li neex suñu borom loolu mooy lu suñu daayira bii di dox ne bu loolu paasee adduna bi tey neexul boo bërewul ñu bëre ñu dal sa kaw kon nag loolu ala ko danda tuma hen amul lu lay musal so wona dentuɗa lutul nga moytu yaadiɓe bonɓe e andondo yu bon saɗa wiya yalla dandame cheytane yalla dandame cheytane yam sal cheytane yalnama yalma sal cheytane kalɗo cheytane nga moytu foof kono yalla dandam seyɗane yalla dandam seyɗane way yalnama yalma sal cheytane yalnama sal cheytane kalɗo seyɗane ko ar wonata ɗon premier feppu mo woote yo nga nekk fo premier ah. a ñaagima eh, allah yalla dañde nga yo de no musal cheytane de kono an rentak cheytane wawi yo mi moytuwo cheytane a reeni ɗeɗo mo ngi lay dimbali bu fekkentene sammontengak ñetti yi ɗum eh, ɗon ne heewi allah walluma hen loolu bari na yallah dimbali la ci ɗum ne kadi wona jangde no feewi loolu bu bari goto fof ne wawi nande ɗum goto woni wawi famde ɗum ku nekk mën na koo dégg ku nekk mën na koo comprendre goto fof yo eto ku nekk na jiyama reeno ɗemgal ne wattu sa kaalaa ko mujj nga wax lu baax ñaamaa ko mujj nga lekk lu baax njaraa ko nga naan lu baax goor fo remtoo junguma ku nekk it moytu sa loxo junguma sa loxo yi ngoliraat nga jëfee ko lu baax memiraat ko nga laale ko lu baax kala ka a jeeya lépp loo moomul bu ko laal koy ma nee sa tànk it nga sàmm ko jaato moƴƴi nga dem fu baax jaada e moƴƴi nga ànd ak ñu baax kala ɗo moƴƴani fépp fu baaxul ndetoɗa yaade toon nde nga moytu ànd foofu kala ɓe moƴƴani ñëpp ñu baaxul it ndetoɗa yaade ne nga bañ a ànd ak ñoom alpulaar ne mbiya ne dañuy wax ne mi naati mi ɓamani ne dugg naa te jàppuma jëluma te jëluma mi naataade ɓuri ne dugguma de moo gën mi naati de kono hunde wiye ñu wax ne am na leer léegi koye nder suudu woni si biir néeg bi la nekk an ah, o gara a ah, mbiya min de mi naati kono mi ɓamani yew gañew gane duguna wawi jeeluma wiɗo winode mi naatan nde ɓuuri sirde wakon ne duguma wonde mo gën a wóor eh, mi watta ko boni duma def lu bon ene moƴƴi baax na kono rentade wawi moytu yaadude e ànd ak ñu bon e liggodirde e bonɓe ak jëfande jëfante ak ñu bon e ɗum ɓuuri moƴƴude loolu moo gën a baax ɗum woni ko kalɗanare ko loolu moy li ma waxoon sànq eh, o koye ɗe gueɗe joyi fawi dayre bi ci ñetti ci juróomi mbir yi la tënku taqwallahi taqwallahi محبة رسول الله محبة رسول الله بر الوالدين بر الوالدين المثابرة على العمل المثابرة على العمل واجتناب صحبة الأشرار واجتناب صحبة الأشرار kulol allah ne ragal yàlla yidde na la sallallahu alayhi wa sallam bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggante jinna ak moom ak mokkal say wayjur étaade ak jéema diggaade ne góorgóoru liggéey ba nga am dara takal bi dum ne wolof noonu ne mu ñu koy wax ci olof nag fas jom fas jom. te nangoo liggéey te nangoo liggéey. fas jom fas jom. te nangoo liggéey te nangoo liggéey. ça veut dire fas jom tan ne boo fasee jom rek. ça veut dire rek. nga ñàkk rek. rek di nga jëriñu. fas jom fas jom. te nangoo liggéey te nangoo liggéey. so ɗum gasi ne bo lolu waye tamit ndeyatuɗa yaade bon nga moytu andando yi bon ɗum woni sarɗeji dayiraji men li moy sartay suñuy dayira yi kono wona rendirande mi nekkul dajalel ko adiya nekkul mbooloo gu bëri même keena nit rek mën na nekk daayira ndax lépp lu ñu doon sàkku ci daayira ba yow nit ki ba nga jub rek la waaye boo defaroo rek nekk nga daayira bu mat yow nga jéem a xool keneen nga xëcc ko nga boole ko sa ngega jéema defar kooku ko git bu baaxee moom it mu nekk daayira yéen ngeen dem uti ñeneen ñoom it ànd ak yéen bu yaatoo rek ñu ne daayira gu mag waaye daayira moom yow kese la te it bul bul xeeb wax ju baax jëf ju baax dina nekk sababu ba mu defar benn nit fekk sa wax la wala sa jëf ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li an yahdiya allahu laka bika li rajulan wahidan li an laka min ad wa ma fiha ne allah fewdat defar nit benn nit yàlla defar ko defar ko ngir sa jëmm loolu moo gën adduna ak li ci biiram defar nit nag mooy yar ko ci yàlla jaamuloo ko yàlla nee nga xiirtal ko eh, ci ragal yàlla eh, eh, nee nga nga nga xiirtal ko ci jëf-jëf ju baax loolu boo ko defee rek nee di nga nekk ku baax nee suñu téere bale bu tudd jawharatul islami toɓɓe tan kalɗen toon ñetti tombo rek lañ fa wax toɓɓe tati te ñetti tombo yooyu mofti kala ko l'islam wonno e nder l'islam effacé nañ lépp lu nekkoon si islam العقيدة ما العقيدة العبادة العبادة والأخلاق والأخلاق العقيدة العقيدة ما أم باس باس يلا غير إيمان بالله

boo yoree jikko bu baax ngay jaamu yàlla nga boole ci ragal yàlla yow jullit bu baax nga waaye boo doxaleewul noonu ku def nii kooku mooy jullit ne kontaan na si ñun lool kontaan na si ñun lool kontaan na si ñun lool ne nekkul adaaya moo nekk suñu déedéet mais boo gisee mu nanguli nee sabab bi man la ba ma kontaan waaye moom lii yëkkatiwu ko te nekkul it mbir moo xam ne da koo baaxoo même léegi sax buñ ko koy may te Ibrahima xool na ko ndax xam na ne moom du ko jàpp du ko laal kono noon waaye nag ko imme e giɗo lu jug lu jógee ci soppe e mu jëm ci soppeem jaggirte ko gilli dañ koy téye ngir sopp ngir ngir cofel kala ko ñaama hen lépp luñ ci lekk ala du am bakkaar te kala ko ñaama e ko jawdi laamdinde ala bakkaar te lépp lu lekk ci alal gu set gu ànd ak bakkaar ko duwa fof lépp luñ ci ñaan yàlla da koy nangu jaaɗo allah gooto ne benn jaamu yàlla eywa meeɗino jaami ngesa makko woni ceerno jibi mbambilor hmm? rahmatullahi dem toola mooy ceerno jibi mbambilor radiallah rahmatullahi aleyhi ñoom ñoo àndoon ñu dem ci biir tool bi ne muy wër ci biir tool bi muy jindi mango mu def ba muus bi fees ñu ñëw ba ci mbaar ma mu ne ko lii man maa la ko may man maa la ko may ngir yàlla ndax garab yi man maa leen sax man maa leen samp maa leen jëmbat kontaan na ci bu baax a baax a baax a baax te incha allahu dina am bés mu ñëw daaru fekk dee tombeeg suñu ay suñu bés ñuy organiser incha allahu ñun ñëpp ñu jokkante foofu ay mbokk incha allahu yàlla ñu ko yàlla defal ne soxna Jeela jërëjëf lii yëpp yàlla ak yow la ndax ba ñuy xamante lii yëpp amul woon ah, taxa nga jigéen nga taxaw taxawaayu soppe lu nëbbu ak lu feeñ e lépp lu baax ci daaru sa loxo mu ngi ci biir e lépp lu baax ci sangal kam sa loxo mu ngi ci biir e lépp lu baax ci mbokk gi sa loxo mu ngi ci biir lépp lu baax ci diggante yi ne sa loxo mu ngi ci ya yal na yàlla yàggal jokk mbokk ya, yal na yàlla bàyyi nañu lu yag nee na kontaan ci lu baax yow ak mboolem li nga uuf yëpp ñi mu xam ak ñi mu xamul ñëpp ñëpp kontaan na ci yow waaye ñii nag la ndax lu gor ci garab rek la moo war a meññ eh, eh, ci garab deretu Ceerno Yahya Li ne Yahya Li waɗama ko moƴƴo bu ñekk ku baax la waɗi ko haani nee na ko lu baax so ko moƴƴi bu doxee lu baax waɗi na lu baax so golli ko moƴƴi bu jëfee lu baax waɗi na lu baax an nana waɗi ko haani yow it def nga na yàlla fay la yow yal na yàlla bàyyi nañu lu yàgg foofu ɗon beltanama yéen ñëpp nag kontaan nañu ci yéen foof on beltanama yéen ci yéen inchallah moom ñu jokkante mbokk ne yéen taalibe tamit kontaan kontaan nañu ci yéen nee nañu ah nee nañu xam ne Ibrahima wuutu na leen fii wuutu gu rafet man tefnena sallallahu alaihi wasallam ni ni fi xew moom moo ko yor yéen ñi di ànd ak man xam ngeen loolu xarit la jarbaat la doom la xarit la ah, yàlla na yàlla def suñu barke amin yàlla na yàlla def suñu barke yàlla na yàlla def suñu barke amin yàlla na yàlla defal jàmm amin defal ko mboolem julit amin insha allah taadaleen loxoy amin آمين آمين آمين يا رب آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح آمين آمين والهال أصفر مستجد وعلى آل حال النبي آمين آمين آمين آمين أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين آمين يا رب العالمين